sargali ca ak mooget kilifa gi maa ngi lay ziar. maa ngi ziar wér. ak mooget ca Gàmbi Fallou Ndiaye di ko def loo ci wax. xanaa di sant Fallou Ndiaye rek. réew moom su xewle moom. dinañ dem bu soobee maa xale caaro yi. du mën a de. ana rëg mu nga fële wala demagul. mu ngi ci biir. kon nag noonu lay demee kaay. maa ngi lay ziar. maa ngi doon ziar. kilifa gi xàmme naal de yow. waaw xàmme bu baax a baax. moo get. moo get. ak rëg-rëg la ñuy sargal. ah loolu day lu rafet moom bu nekkee yàlla nañ ci taxaw baax a baax a di ngeen ci taxaw. incha allah. bu baax a kon di ngeen gunge rëg-rëg ak moo get la 27 ak la 28. ñoo koy gunge kay yóbbu ko ndiwaat ko si kattanu yàlla. lu ngeen di wax Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye nekk moom te nanu xaar bu baax a baax ñu ngi ñëw si jàmm. nanu teral teeruñu. yaay booy ziar naa yàlla nangu ziar xanaa kontaan si rek di ñaanal sunu doom ji yàlla may ko wér ak wér ba lépp lu ñu yóotu si moom yàlla defal ñu ko ñun waa Kane danoo bëgg roi bi dugg fii sunu biir kër gi ñu ngi gërëm Fallou Ndiaye di gërëm ñëpp yàlla na ko yàlla gën a dooleel yàlla gën kaa jàppale. ah non dañoo bëgg dem ci sagal ko parce que dañoo bëgg a taxaw defante lu baax borom jom la bëreekat la te ñun bëre rek mooy sunu cosaan ëtt bi. bëgg mu ñëw fi te dina fi ñëw bu neexee yàlla ci kat ay bàjjanam nañ ca kaw ca kanam bàjjanam la ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di ñaanal Reug Reug gudd fan ak wér Fallou Ndiaye nag mënuñu koo fay ndax bu sargalee Reug Reug mel na ne ñun la sargal bañ a dem Gambie moom il faut ñu dem fa ndax Reug Reug moom fu mu aw fu ne il faut ñu aw fa lu ngeen di wax Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye ah moom dañ koy delloo njukkal moom il faut ñu dem Gambie mu ne il faut ñu dem Gambie kon gars yi dañuy waajal Gambia du mën a ñàkk rëg-rëg la ñuy waaj a sargali ak moo get gaa yaa nga nële lébu yaa kon gomis naa kontaan rek parce que yow mii da nga maa xamul waaye am na lu ma la waxoon avant combat bi nee naa la rëg-rëg dafagul dara nan bàyyi ba ci kanam waaw sargal bi noo ko gisee kontaan si moom kontaan si trop ndax rëg-rëg ku ko rek da nga war a ndax liggéeyal ne Sénégal loo xamante ne bi ak ku mu mënti doon rek surtout président république war na kaa mën a sargal kontaan naa si trop waaw ok. tey ñëwaat naa ci géej gi xanaa tey moom waa ana rëg ci boppam sax rëga nga nële ca mbaar ma mais xaar ma jaar fii gomis salaamaaleykum borom musóor gi kii de xàmme naa ko mbaam mbaam nga jàmm. jàmm mais Sénégal la jàmm ju neex sax ah. boo ma xoolee ni ma toogee xam ne jàmm rek laa toog. ay sëg musóor de. waa yaa ma gën a xam. Ah. wax ju yegg dafa ko moom. léegi Reug Reug Fallou Ndiaye da koy sargal le 27 ak le 28 ca Fass Ndiaga Thioye ca diggante Sénégal ak Gambie. loolu dina neex de loolu ñun lébu yi rek ñu war fee babba ko ñaale li yor loolu dina neex. daal di ndaw rabbin. ah ceebu jën ndagañ yaa ma gën a xam. a ngi nii toog Reug a ngi noonu toog Reug def na affaire de man de. jël ba mu daan euh, conteneur sax rëy laa ilaha illallah lii nag gars dañ koo nam ci yow xam nga loolu am micro lii la waa senegal nam ci yow gars yi dañ la gëj gis nga bëre rëg rëg dindil euh, wàccel masque bi rek gars gis la est-ce que yi dañ doon dute naa est rëg a ngi mën a bëre mais li nga wane fii day est-ce yaram waa ngir fonctionné ba tey waaw avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax. waaw waaw. di julli senant bi. di ñaanal sama papa ak sama tante. yal na leen yàlla xaare àjjana firdawsi. amiin waay. ak mboolem jullit ñu fa fekk ak ñi leen fa fekk. amiin waaw di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba kanam. di nuy sama papa yëpp ak sama sama doomu baay yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. waaw di nuyu waa Sénégal di nuyu caare géej gi ma dëkk. Mhm. waaw di nuyu sama mbokki mbër yi. waaw kii mooy Ahmed Deme numéro 2. Ahmed kii mooy Serigne Arou. conteneur moom laan bëral sànq ñoom Ahmed Dem ñoom Baye Ma Ndione ah ñoom Issa Pouye ñoom Khadim Ndiaye 1 Khadim Ndiaye 2 Ousmane Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee ay su mel ni ñoom Boylo mhm. mhm. ay Géral mhm. ay Brise de Mer gars yi maa ngi leen di bëggee daal ah, ay Pape Fall ay maa ngi leen di bëggee ay Kapi Kapi waaw ah. ay Thérèse Thérèse tamit daa bàyyi quoi daa daw waaw moom moom mu ngi daw na ma non man ta ñëw. man lu ko fa tee. ah kooku man dinañu ko bàyyi na bëre. déedéet waay ah. non non bàyyi na. Thérèse la ne bàyyi na bëre yow. bàyyi na bu yàgg. ah. papa yi kii nañu ko tuddee. ah <laughs> nga ne sa peese ay tey Thérèse bàyyi na de. non ah. père bàyyiwul père bàyyiwul moom mooy saboote rek mais père mu ngi ci làmb ji ba tey. déedéet waaw père a ngi réglé combat bu mag bu ñëwaatee ñëpp xam ne dellu si. kooku bëgg a kooku bëgg a. non père bàyyiwul. Ah. non yow da ngay saboote rek mais père. kon dañ koy teg état-unis est-ce que fa lañ koy tëggee ji ko non combat Sénégal fii. ah, ah. waaye non waaye rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi defar dina dellu si. dina dellu si am na solo lay 2030 fekk xam naa kon licence ba jeex mais rek tey li ñu fi gën a indi bokk na ci ginnaaw bi nga defee li nga def fa nga xam ne mooy ca Singapour ñëw Sénégal nag koo xam ne promoteur u làmb la di Fallou njaay ànd ak waa làmb jëpp fas la yéenee sargal le 27 ak le 28 fa nga xam ne mooy ca Fass Ndiaga Thioye ca côté Gambie loolu yow. en tant que sénégalais en tant que mbër tey bés boobu non bi nga déggee sargal boobu Fallou Ndiaye jàpp ko waa Ndiaye production loo loo yëg. non non bettu ma nag. ni maa ngi moom ay. Hmm. yàgg nañ maa ngi moom. ok waaw boo doonulee dara la. Mhm. ba ma doonulee dara si lañ xamante. dëgg la seq ay teraanga. Mhm. saa bu ma jëlee làmb dañuy dem si benn million. reer waxtaan. Hmm. mu wax ma lu bëree bëri xam nga maa ngi koy doog expliqué. waaw loolu moom demee kon loolu. moom benn nañ. Mhm. waaw sotti seeg def la. te ba pare dama demoon xeexal dëkk. Uh-huh. si Sénégal laa demoon xeexali kon yoon la mu ñëw sargal ma. Mhm. moom Sénégal la. Mhm. kon loolu dañ ciy kontaan. di si oo sama mbokki mbër yëpp bu ma limee damay juum. a ah, ak waaye wat lutte simple. ñëpp maa ngi leen di oo. su mel ni ñëpp kuy bëgg rek rek maa ngi lay oo si bis boobu nga ñëw ñu gunge ma. incha allah le waa Gambie na ma xaar. dinaa ñëw incha ku bëgg a gis. yëngal Reug Reug rek ak ambiance bi rek na ñëw fekk ñu foofu incha allah. Euh, te dama laaj sànq fii sa mbokku lébu yi am na ci soxna suma laaj sax moom ne luy ndaw rab bi nag cosaanu lébu dinañ ko yóbbu ca Gàmbi ngir bés boobu ndax fi mu leen toll. waaw incha allah loolu moom li koy mhm. euh, tey mu mel ni kon loolu dèjà jàpp nañ ko ñu boole laak koo xam ne doomu Sénégal la mais di dund ci États-Unis muy Moget mu mel ni bés boobu yéen la ci fàllu nar a sargal moo moomu ñu la booleel ci bés di leen sargalandoo loo ciy wax. waa mais du si wax dara xanaa kontaan rek laa ciy wax ndax Moget doomu Sénégal la. Mm-hmm. Hmm? waaw n'est-ce pas. doomu Sénégal la. Mm-hmm. am na droit sargal ka Fallou Ndiaye lu def noonu maanaam tey jii am na droit sargal ka. Mm-hmm. mais man moom. li may wax rek. sotti teg def si la. Mhm. ñun ñëpp ñu on ensemble. Mhm. ñoo bokk Sénégal. Mhm. noonu la demee. noonu la demee tey euh, mu mel ni tamit euh, fi mu nekk nii lamb ji donte taxaw na Sénégal mais Gambie gaa yaa ngi fay bëree ay tournoi ak yu mel ni ki noonu. mbër yu bëree ngi nekk Sénégal di fa bëree ji. fa bëree ji ku mel ni Jamaye Keesa war na fa tëgg combat mois de mars. loolu tam noo ko gisee. waaw loolu kontaan ndax euh, gis nga lamb dafa miti instant bi jamono bu ñu dal nii surtout sama mbokk yi lutte simple instant bi bëréwuñu defuñu lenn mhm. ndax ñoom dañoo lépp pour bëgg dimbali leeg bàyyi mhm. te bu ñu gisee fële di tëgg tegi pourtant demewul noonu te ay champion nga fay gis ngay xam ne làmb ah. daa euh, daa yéexe ibbi Sénégal boo xoolee sport yooyu si àdduna bi yëpp ibbi nañ ba mu sëf làmb uh-huh. kon loolu amuma si ludul kontaan ak mbégte uh-huh. ndax kenn ku ne yaa xam dépense bi ngay joxe sa sa biir kër n'est-ce kon loolu dañ si rafetlu. Mhm. ànd seeg tamit euh, promoteur yëpp nañ nañ ñëw ñu tëgg làmb yi. Mhm. pour xale yi si nekk bëree mën a dimbali seen yaay. Mhm. ak seen papa. dafa am ñoo xam ne ay amateuru simple lañ ñooñu moom dañ laa nam fans club Babacar lañu man mii di wax ak yow samay samay soppe lañu ñoom ñii ñu nga dëkk Joal ñii nga dëkk fu dëkku séréer ne ay ñoom Grand Laye ñoom Jigé ñoom Pape Ndiaye Pablo ñii say support ñooñu da ci bëri ñoo xam ne dañ lay bëggee mm-hmm. ak 100 pour cent Equivox bi ñoo ñëpp dañ lay bëggee mm-hmm. ak maanaam soppe yi maanaam ñiy dund làmb mm-hmm. ñooñu tey boo amoon message boo leen di wax loo leen di wax parce que ñun tamit wéet nañu fi mu nekk ni waaw mooy li may wax rek làmb comme li moo xam moo ñëwaat làmb moom moo xoolee dafa yéex a ibbi boo xoolee ñooñu nga wax noonu. Hmm. nekk uh, di la dimbali te yàlla rek tax di jënd seen connection bien sûr invité di nekk si yow. kon ñooñu amoo seen fay. wallaay amoo seen fay. xam nga ma lay expliqué. ba si man mii samay samay fan samay fan si club. Hmm. ah que je mel ni maa ngi nuyu sama fan si club groupe bi yëpp. Hmm. ñoom Bukar ah ñoom bu ma limee daal damay juum di jël nuyoo bi di ko teg si loxo prési ah di la ko nuyu di ko wax nag gis naa jàppale yi ngeen ma jàppale muy maanaam ñu jël seen connexion invité ñu ngi nekk si man kon ñooñu aw ma seen fay ba si yow mi sa ñëwee amoo seen fay kon da leen di ñaanal yàlla suñu borom yokku leen mm-hmm. ah gën leen la jubale mm-hmm. mm-hmm. am na solo am na tamit ku ñuy wax Cissé ca Brésil kooku mas naa la yónnee message sam vocal am yaa ngi dégg moom day pratiquer wàllum MMA moom it ku lay bëggee la waaw moom war nga ko nuyu doomu Sénégal la waa Saloum la taalibe Baye Niass mu ngi nekk ba Brésil fa daan doole Cissé kooku kooku kooku sama waay la Cissé waaw waaw wax nga dëgg Cissé waaw ndax boo xoolee <laughs> yee ñu ngi déggante waaw moom ñu ngi déggante ok yee maa ngi koy nuyu di ko wax nag adduna moom noonu la foo nekk rek mhm. waaw na la sa réew na la sa réew gën a lépp dëgg la yaa may dégg waaw kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yan ñu koy yan bi mu nekk nii yàlla na oyof si barke Seydina Mohamed waaw ndax ñun ñëpp Sénégal la ñuy xeexal rek waaw tey sa grand frère koo xam ne sa conseil la ci li ma am ci ay source li ngeen di waxtaan bëri na ci wàllum MMA muy Bombardier signé waat na benn komba ñetti komba sax mais ki mu signal moo doy waar benn xaw ma euh, polonais waaju doy doy waar loolu bi nga ko yëgee ak Bombardier signature am bu bees boobu ban ban xalaat nga ci am. non aw ma si ben xalaat ndax boo xoolee. Mhm. Euh, comment dirais nu ma la ko mën a expliquer. man noonu la ma ma wax ba ma signé ak Ngalani. waaw Sénégal xawoon naa mhm. waaw mais Bombardier man wolu naa ko si côté boobu. Mhm. ndax oui eh, wóolu naa Bombardier. ndax moom punkal moo xam ne tey ji bu doxee sa kaw far garde bi. waaw. bu la bu la wàccee suuf rek yow jéem a amatoo len loole ndax moo lay ëpp poids moo lay gën a diis mhm. bu toogee sa kaw doo jóg mhm. kon kooku man wóolu naa ko mhm. te lu muy def da si ànd ak jom ak fulam waaw di koy ñaanal yàlla suñu borom may ñu ndam yaa loolu rek lañ koy ñaanal parce que démb laaj naa ko moom nee na moom li ko gënal moom mooy li xam ne nii moom leer na ko ne lii dañ naan mën na cee génn wala mënu loolu la bëgg di combat yi la bëgg di am waaw waaw mais xam tey jii mooy am naka te da siy génn si kattanu suñu borom dina ci génn incha allah waaw bu soobee yàlla looy wax waa Sénégal. waa di di ñaan rawatina waa diaspora bi surtout <laughs> état yi ne waaw surtout diaspora bi ci ci biti. wax nga dëgg waa diaspora bi trop. dëgg waa diaspora dañ may bëggee ndax boo xoolee bu may doog a dem États-Unis mhm. man damay dox ba si yàgg rek tourné rek am kuy wax sama tur ma ne waa kii kaar fan la ma xamee. mu doon doomu sénégalais. ma xam ne ñun maanaam ñi nekk fii war nañuy bàyyi xel ñi nekk bitim réew. Mhm. ndax lu am solo la ndax ñoom dañuy dund làmb bu ñu liggéeyee ba ñëw amuñu benn soxla lu dul xool làmb wala ñu xool liy xew Sénégal kon ñooñu dañ leen waral di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm di nuyu ñëpp bu ma limee damay jum surtout waa New York bu ma newoon muy Tata asu ak grand Alsane Niang maa ngi koy bu baax a baax a baax ndax bi ma ñëwee foofu jàppale nama ak soxnaam su mel ni Mouhamed ak Papa ak Ami jàppale nañ ma si ndax guddeeg bëccëg lu ma bëgg lekk dañ ma koy defal kon ñooñu aw ma seen fay te héberge rek dafa miti am na ñu bëri ñu am ay am na ñu bëri mbër yu bëri yu am ay visa mënuñoo dem ndax amuñu ku leen héberger kon ñun buñ ko amee rek mhm. dañuy sant yàlla ndax xam nañ ñooñu doomu caaray nañ mhm. kooku papa euh, magam moo doon ànd ak sama papa kon bu ma héberger war na ndax sama papa la maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm ak ak famem bi yëpp mhm. ak njabootam gi yëpp lu mu bëgg moo ko xam yàlla nga suñu borom defal di nuyu tamit waa waa Caaray Géej aw ma seen fay maa ngi nuyu ñëpp ñëpp bu ma limee damay juum du nuyu waa caalaan ñoojoor jonwaar falya basal basul ah ngajoor ah euh, sio ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu ndax dañuy jàpp sama combat ba ak waa basar waa basul surtout waa caalaan awma seen fay ak wa mbeela ngic dañuy jàpp samay combat surtout ak waa Diofior Fimela Samb mar faafaka mar looj ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gëm ndax ñooñu dañuy jàpp si samay combat ak waa Kaolack waaw Kaolack waaw maa ngi leen di bëgg bu baax a baax dañuy jàpp samay combat mm-hmm. jërëjëf mais da nga am tëggkat ñëpp xame la ak moom moomoo nga am waykat boo xam ne dañ ne ñëpp ñu bëri boog dañ ne sab waykat la muy Mbayang Loum ñaar ñooñ loo may wax ci ñoom entre Mbayang ak moomoo waaw Mbayang Mbayang man ak moom ñi nga xamante si ndox mi ci ndox mi mu doon nit koo xam ne maanaam nit la quoi ndax dama bi ma bu ma jumule jonwaar lañ daje woon muy way lu neex ma jël làmb nekk bëgg naa bu ma demee léegi si làmb nga may woyal n'est-ce pas nag ay teraanga loo xalaat seex nañ ko mag moom waaw mu doon sama yaay di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ka jàmm nit ku baax la Mbayang amul benn problème yene saa sa xolom moo koy tooñ xam nga ma la expliqué ko ko kooku nit ku baax la maa koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm moo xam lu mu bëgg si àdduna yàlla na borom defal si barke seen ma moo nag li may wax si moom kooku sama rakk la bëtu rakk laa koy xoolee xoolee ma ko bëgg bëtu euh, tëggkat ak kii non non bëtu rakk koy xoolee mhm. bu ñëwee si kër gi dafay nekk heure bu ko neex mhm. yaa may dégg kon kooku rakk la si man mhm. xoolee ma koy bëtu tëggkat ak kooku di ñaanal papaam yàlla na la ko sunu borom taxawu hmm? taxaw famille bi yëpp si barke Seydina Mohamed mais moomoo moom sama moomoo la mhm. waaw <laughs> fi may jeexaleeg yow fan ne ñëw na fat waroon la laaj laajuma mhm. muy mbër nga xam ne ay ancien gloire lañu ku mel ni Boy Bambara génnaat yàlla na ko yàlla yërëm ñu jëloon fi Mansour Diop numéro un mhm. fii ci micro bi ne taxawuñ leen ñoom Mbaye Guèye ñoom duubales ak yeneen mag ñi ba yegg ba ci ne yéen équipe nationale sax a ah, taxaw te bu défendre équipe bi jotee ngeen défendre ko waxi Mansour amul benn njariñ bul waxati lii xamul ta amul njariñ waaw da ngay dem dëkk waaw déglul baax damay dem dañoo dem doosa doosa ñu toj ka tasar ba ñuy xañ ay xeer ñu daw laqatu si police yi police yi duñu kon foofu suñu bakkan xajoon na fa nañ waxante dëgg bu ñu ñëwee gisuñu ku ñu teeru hmm. gisuñu kenn ku ñu oo kenn oowuñu loolu doy na waar di mooy mooy moo tax ma la équipe nationale amul benn njariñ uh-huh. maanaam lan moo si am njariñ dam xeexal sa dëkk te doo si xaar loxo kenn looloo si am njariñ mais li si des ay détails la. mag ñi tëdd tey. mag ñi tëdd waxoon naa ko ñoom Mbaye Guèye waxoon naa ko fan yële passé. Uh-huh. bu ma juumulee. Uh-huh. nee naa la. sunu papa yi fi ne ak sunu maam yi. nañ leen jàppale. ginnaaw yàlla tey ñoom ñoo tax làmb egg si fii. dañu waxante dëgg. Uh, bu ñu xaar CNG naan day jàppale paa yi. paa ñun acte ñun ñii acteurs yi. waaw ah ni ma la ko mën a expliquer. yéen mbëri ñun mbëri. waaw ñun ñoo war a def benn association boo xam ne ku si bëre. Hmm. wala waaye ku si am loo xam ne da nga koy dimbali te yàlla rek tax. Hmm. nga ñu defal leen benn compte boo xam ne pour ñoom muy man muy Balla gay Modou Lo Eumeu Sène Tapha Tine Ama Baldé Boy Niang Sa Thiès Gouye Gui ñëpp ku yàlla dimbali ba nga commencé feeku ay million ñoo ñooñu war ngaa dimbali suñu papa yi ndax lépp. ginnaaw yàlla tey ñoom ñoo tax ñuy ku loolu nañu waxante dëgg loolu dafa am solo waaw kon daal yow bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaw am na solo rek kontaan naa si yow maa la gën a kontaan Babacar kontaan naa ah. si yow di wax Sénégal yàlla fi jàmm ah ana guy mu ngi fi. <laughs> yéen a ngi mu ngi fi mu ngi fi gisanteegu ngeen ba tey. non gisanteegu ñu. ah da bëkkanteegu ngeen ci di jàll tamit sama benn rakk muy bàcc. ok fan yii la laxu quoi. ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom xaaral ko àjjana firdawsi. amiin di koy ñaanal yàlla suuf oyo si koom si barke waaw kon ba le 27 ak le 28. waaw incha allah jaajëf ca Gambie. jaajëf Babacar bég ci yaw jaajëf.